loolu nga mujjee dégg samedi bi passé Ndeye Ndiaye Banaya lañ ma giñ kon xam nga ne tey bu ñu waxee bu ñu jugee si Ndeye Ndiaye Banaya dem si Rangou. fii Sénégal dóor moo fi ëpp xaalis man xam nga ay waxi dóor sax waratu waratuma ko wax mais moo fi ëpp xaalis billaay. daal la nga jàpp ne Sénégal fi daaw ñuy dóor quoi. fii pour am non dóor moo fi ëpp xaalis nañ yem foofu rek. mais mais mais expliquer parce que yaa wax loolu war nga ko expliquer. lii ak lii non Sénégal xoola xoola ñaari dof yooyu. Pawlish Mbaye ak nda ak ak ak dooma dof boobu. de la waaw hmm. xam naa waaw. ñoom ay waxi dof rek la ñuy wax te pourtant dañoo am xaalis eh. ku nekk yaa ngi dawal oto rafet mais ñoom ñëpp seen bopp yu baaxul Lirou Diane moo gën a dof ci mbër yi. mais eh. pour pourtant dañ saa day def yëf sol sol lu rafet. Hmm. mais boo koy dékk micro muy wax waxu dof. mais mais mais mais mais yéen. alinar xanaa nekk moom moom ñeeg da day def nii gars yi quoi pourquoi nga nga ne yow Liru Jaan dof la te mu nekk mbër di bëre comme yow kon yow comprendre dara dof ngay dëkk micro mu laan la bu ma waxaat li ah, li ba ma ko waxaatee di nga xam ah, dof loolu dof moo koy def kooku bopp bi baaxul non nañ waxante dëgg rek Pawlish eh. Mbaye góor bu toll ne moom nga jàpp xeesal sa bopp bi tent ko kooku dof la man dof laa ko jàppee Ouzin noonu mu mel noonu daa daan woon si teen bi mu nekkee xale lu garaa laa lay tegal xam naa ko de xel mee dem barki sëñ Bamba eh. moom lu garaaw laa lay tegal bis boo ko gisee boo ko laajee ba xam bi nga nekkee xale da nga musa daanu si teen dina la leeral li nga jaax du mu daan si teen moo tax mu xaw kay da ba ma koy xam soirée sénégalais ndéggéey moom mooy woy première partie hmm. ma koy xam yàgg na du léegi mais moom instant yii nii moog Pawlish ñooy yëngal la réseaux sociaux ñoom déggoo moom li ma lay wax ay dof ay dof ngay dajale ñoom <laughs> man biisu bu ma koy seetaan jour boobu sax mu mujjee ma ne biisu man nan la mun a waxee ak ñii ah mais ñooñu seen ñoo xam ne seen bopp baaxul Lirou Diane barki démb lañ ko def émission directe. <laughs> muy nuyoo. waaw naan ama neex bu yeewoo damay nuyu ñii bu ñu yeewoo du nuyu te ñi muy waxal ñoom ñoo bokk géejawaay. Hmm. muy Abdou Diouf. mais loolu est-ce nekkul problème est-ce nekkul problème am ku nekk ak sa problème am nga diwaane diw du ma kii wala. la. Hmm. bokk ngeen plateau. Hmm. mais bul wax ay duñ ma nuyu comme yow doo nuyu nuyool sa nuyoo te noppi mais dof weesuwul plateau direct nga naan. ama neex bu yeewoo damay nuyu ñii bu ñu yeewoo duñ nuyu loolu bo nit dina ko def moom day sol yëre yu nitee hmm? toog war a wax waxu nit mais day def day wax waxu dof kon loolu dof daan nga jàppee lii bi baaxul dóori ko wulli dóori ko jàpp <laughs> am neex yaa xam dof yaa ngi si biir nit ñi di eh. <laughs> Sénégal moo bëri ay dof nag hmm. laa ilaaha illallaah ak kan nga ñu mën a tudd à part Lirou Diane Lirou dof la ak dox bu mag bi nag mooy mooy mooy sawaay mooy mooy Ouzin Keita. Pawlish Mbaye ñëw na ko danduma. <laughs> rang ñoom rang moom moom xam nañ ne moom moom moom ñëpp xam nañ ne moom dof la ndax kayitu dof la am. que rang kayitu dof la yor. moo tax du yàgg 100 mètres buy dem di génnaat. <laughs> Sénégal mais mais mais alliance yooyu laal na koo xam ne tey jii bu la déggee tey jii nii yéen ñaar di ngeen boo defu naan di ngeen rang de. rang. yow rang daa ñemee raag ak man. rang nga xam ne mb day dagg moom moom moom ñëpp ko xamee day saa nga xëy attaqué. loolu mooy dof bi ba gis nga képp kuy génn si ay site. Hmm. wala ngay def ay vidéo di saaga. Hmm. da nga fàtte ne da bàyyi sa yaay kër ga. boo joxee sa yaay cër. Hmm. am cër si doomu aadama doo saaga kenn ndey ci souvent direct. ngay dagg lu ñaaw ëllëg say doom dañu war a ñëw sa papa moo fi doon saaga loolu rek woy bu ñaaw la. te dañ maa fekk appartement rangu màndi yóbbuwuma fa. est-ce que mën moo la fa yóbbuwoon exactement. non loolu. Hmm. loolu yàgg na xool dañ ciy doog a jot loolu ay xaalis moo la fay dugal n'est-ce pas. Hmm. def soirée privée. waaw waaw loolu yàgg na mais màndi gi moo ma métti musuma màndi pour dul tux cigarette nooy màndee. yow daal nga dem soirée moom. non benn yoon boobu la. Hmm. waaw te màndi woo quoi. non du ma tux cigarette sax bay màndi. <laughs> c'est nag. waaw. am na ñoo xam ne buñ gisee benn bouteille bu nekk sa wet rek ñeneen di naan rek yow mun nañ la considérer comme naankat. mais mais mais mais alliance loolu loolu loolu tee na xel de. waaw xam nga lu tax mu tee xel. Hmm. man dama toog mais ku ne ak fi nga toog ñi toog suma côté ñoom ñooy màndi. d'accord. barki Serigne Saliou musuma sax sax cigarette bay màndi mais soirée privée la xaalis moo la fay dugal. yow da ngaa dagg paas dugg yow ay kilifa ñu fa woon mais ñu fa d'accord na ay kilifa mais la laaj ba xam da nga ñëw dagg paas dagg paas dugg ci soirée bi. te paas bi ba xamul première cadeau la de. lu garaaw laa lay tegal. paas bi. <laughs> waaw. ticket bi lay dugal foofu première cadeau hmm. maanaam si gàttal. waaw yóbbu ñu may la soxna. d'accord. waaw foo yóbbu ñu may la soxna. Hmm. parce que paas bi foofu noonu bojo bojo du fa dugg mun naa ne ñu fa dugg man rek maa si amul tur tey su ma waxoon ñu fa dugg loxo day dar gémmiñ fi ñuy ñëwaat mooy que ni euh, dañoo dégg ne euh, Paka Josko Sarr da lay fay xaalis pour ngay saaga. <laughs> ba mu ci jotee sax dafay yàgg parce que Paka Josaat Paka Josoon ba ma koy xam Bamba moo tax ma xam ko Bamba Itali mu nekk suma waay nekk taalibe mais taalibe Serigne Saliou ku baax dina saagaloo kenn. Paco Jackson boo saagaa ci kanamam sax day wax astafurlah. mais pourquoi courir rek ne alliance alliance dafa ba maanaam koy di ko olef dafa weex donc wala lépp lu ñu ne moom lu waral lool. noonu la demee nag barki Sëñ Bamba alliance lu mu laal rek. <laughs> dañ ne alliance lii alliance la Paco Jackson sama xarit la sama waay la. Mhm. mais koo xam ne du saaga dina la saagaloo. ñooy Paco Jackson daf ma jox pour ma saaga. Mhm. <laughs> man su may saaga damay saagaal sama bopp mais man dañ ma yar duma kuy saaga. Mhm. mais Paco Jason daf ma jox xaalis bu ma saaga. mais naa jàpp comme moment bi fi nga jógee nii est-ce que na toog di saaga. non du ma saagaal kenn <laughs> ku bëgg a saaga da ngay saagaal sa bopp. Mhm. mais ci Paco Jason boobu faa mhm. parce que gisoon nañ ma may dem si gaaleem gisoon nañ ma may waxtaan ak moom. Mhm. à cause de mais musuma wax saagaal ma diw wala kaay ma jox la xaalis nga saagaal ma dëgg la nag yàgg na yëkkati alalam may ma. mais musuma wax saagaal ma diw wala kaay ma jox la nga saagaal ma diw. Baye Fall la borom baax la. Mhm. taalibe Serigne Saliou la kooku du saagalu kenn. Mhm. waaw c'est yenn saa dañuy fàtte. Mhm. dangay def lu baax ba nekk ci tolof tolof ñu fàtte la. ana Cheikh Gadiaga. doo ko dégg ci dara parce que comme tawat mu ngi ci moom. doo dégg kenn fàttali ko pourtant mu ngi fi doon def lu baax mais Sénégal yenn saa dañuy fàtte jëf yu baax. kon kon bi ñu bëggee dégg-dégg daal Paka sa Thiam sa xarit la. Mhm. waaw yow daal noonu nga ko jàppee sama xarit la sama xarit la. musuma saagaloo. mais saagaloo la musuma jox xaalis ne ma saagaal kenn. Mhm. pour mu leer. Mhm. waaw musuma jox xaalis ne ma saagaal kenn. maa ngi nuyu nag biisu Pata 2S. maa ngi koy bëggee bu baax sama jigéen bi.